seen cabinet nii na ñoo leen andil ay xeetu jaaro yu doy waar loolu di dox si wàllu karange wërsëg bayre ak ubbeeku bu doy waar jigéen gu am faru rab wala góor gu të ba sa jigéen ju taxaw jaaro yi dafay dëppoo ak sa tabia sa bidéew say sarax ak sa couleur ngir nga mën a am si jaaro yooyu jokkool ak waa Nasrul Muminina di ay boromi xam-xam yu mag si biir réew mi produit bio 100 pour cent Nasrul Muminina amu si morom si wàllu néew kattan hémorroïde ndoxum siti ba si tawati jigéen ñi ngir jokkoo ak ñoom wooteel gaaw gaaw si 78 445 0419 wala 76 362 75 14 Nasrul Muminin nag garab ak gàncax mooy xeetali jullit yi di saafara seen jàngoro. Lafimex di société sénégalais yi nekk fii ci réew mi taxaw temm ci andi leen ay produits alimentaires yi sell baax gën ci seen wér-gu-yaram fii ngeen di fekk gaam ayta di gaam bi ngeen tàmm ci produit yu neex sell seeni cafka yi benn la ataaya bii di ayta moom la ñu tàmm ndax am na thé ver am na thé jasmine gaam ayta nag yemul foofu am nañu cornichon oignon blanc oignon vert maïs crevette ananas trans ananas jus ak yeneen i produits yu sell baax ci sunu wér-gu-yaram ngeen am ko ci biir gaam ayta waaye nag du fàtte benn yoon sunu mayonnaise arida bi ñu la fi mex si andil cafkaam benn la te moom la ñëpp di wër ci marché bi ak Lafimex xel yëppay dal ndax dafa gën ci sunu koom-koom gën ci sunu biir cëy yàlla mu nekkoon nag lu doy waar lool yaa ma jaxle na lool boppam tëju na ndax nag nga nekk ci kër ba noppi nekk xale di gis yoo xam ne mënoo xam lan la dafa nekk lu doy waar loolu daf ko traumatiser ko maanaam traumatiser ko ub boppam jaxase xelam mu tëju néegam lekk jafe ko naan jafe ko nelaw bu baax jafe ko ba yaayam am ci seetlu comme waajur ak doom mu ñëw néegam nag waaye yaama dama jaaxle rek fan yi lan moo xew yaama des fois da ngay toog rek yor comportement boo xam ne du xam lan la te yi xam naa ne yow nit ku dal nga ku sérieux nga ku ouvert nga ku am activité nga mais fan yi gis naa ne liggéey yi nga doon def sax defatoo ko maanaam sa tante gisutuma nga dem si waañ bi du ko jàppale yére yi xale yi itam gis naa footoo ko activité yi nga daan def yow yaa tax sax kër gi wutuñu jànq maanaam activité yi nga daan def yëpp da nga ko bàyyi lan moo waral loolu yaama te sa papa xam nga ni fan yi du yàgg mu ñëw incha allah yaa ma ne ko yaay du dara dafa am loo xam ne dafa nekk sama xel mi nekk sama xol bi te nag yaay wax dëgg yàlla mënuma la ko wax xaw ma nan laay def te su ma ko jéemee fàtte du ma ko mën a fàtte kër gi daal vraiment du ma la nëbb mais daal xaw ma nan laa def mais sama papa su ma mënoon a daal ma dem bitim réew toog fa di liggéey wala ma àggali fa sama njàng moom ma gën a loon noonu yaay ji daal di ree yaay ji ne ko yow yaa ma yow yaa mën a wax lii yow xanaa waxoo sa rakk bi nga xam ne ah mooy moor xanaa waxoo ne moom moom moom la ñu war a yóbbu mu tukki dem def li nga xam ne mooy lycée mu defee ko bi France jàng ci lycée foofu pour mën a am amee foofu bac xanaa waxoo moom ñu yóbbu ko mu dem jàngi foofu xanaa nekk woon doon waxtaan ak sa papa ci loolu di ci dox ay jéego waaye léegi lan moo tax yow nga bëgg a changer avis yow nga bëgg a dem yow tey boo demee man kan laay desel ci kër gi. sa tante ne fi yow nga nekk fi macha allah ak ni nga ñu taxaw ak ni nga yoree kër gi ni nga ni nga ci jàppee yaa ne ko loolu yëpp dëgg la yaay mais su fekkee ci kër gi dama fiy gis lu ma neexul loo xam ne tax na bëggatuma fay toog yaay ji ne ko la neexul loolu lan la mu ne ko ah yaay du lépp lañ mën a wax de te man am na loo xam ne yaree woo ma ko noonu yaay ji daal di insister rek noonu nag yaay ji amatul jàmm ndax bëgg a xam lan moo xew mu commencé di sonn ñu yaama di di di di waxtaan ak moom di ko convaincre pour ma wax parce que xam na ne yaama moom amul caaxaan su dee su nee dara la rek dara la noonu yaa ma daal ne ko yaay man maa ngi nekk ci kër gi waxtu woo xam ne nit ñaa ngi dallu lu ci ëpp balaa maa tëdd di dallu dinaa raxas ndab yi nettoyé waañ bi naka noonu itam dinaa jël sama yére ak sa yére tànta yu ci bëri mën naa koy fóot di ko weer ci kaw liggéey yu bëri ci kër gi mën naa koy def li waral loolu nag sàkku li nga xam ne mooy ngërëm ak li nga xam ne noonu nga ma yaree ndax ñu fi nekk ñëpp samay waajur lañ muy sama tànta muy yow mu itam sama rakk papa bi ne ci kër gi donte ne nag ku doy la bi mu ne donte ku doy la wax ji daf koo rëcc yaay ji ne ko ah nu mu doy waar lan nga seq moom yaa ne daal di sëgg ñu ko waxal lan la def lu mu la def mu ne ko man kay def ma dara yaa ji ne kon nag yaama bu ma jaaxal waxal lan nga seq Abdou ba naan ko doy waar la ak yow lan ngay wax ne moom nga gis ci kër mu jaaxal la Abdou dara def dara yaa ji nag xelam commencé ñaaw mu jàpp ne Abdou est-ce que nekkul ne day sàkku yaamoo la dara yaama nag bi ma xamee ne yaayam foofu lay xalaatee mun ko déedéet yaay fi ngay xalaatee du foofu man daal am na loo xam ne bëgg naa ci waxtaan ak yow mais ñemewu ma. yaa ji ne ko waxal rek yaama waxal rek gis nga problème bu nekk am na solution te man maay sa yaay soo waxut ak man kan ngay waxal. yaa ma ne ko yaay pour wax la dëgg sama papa jiite Abdou dafay yàq kër gi noonu yaay ji ne kama ci yàq kër gi mu ne ko waaw mu ne ko parce que li mu nekkee ci kër gi samay rakk yi bu ñu doxoon ba gis ko mën na leen influencé wala mu yàq leen te man wóoluutuma ko yaay ji ne ko lan la def gaawe ma man kat tiit naa di Abdou lu mu def Abdou ak ni mu jàmburee néegam sax du ko génn mu ne ko loolu nag moo tax mu dangereux gis nga genre yi nga gis luñ dem fenn. ñoo gën a dangereux mu ne ko Abdou mii sama papa Abdou mii barki démb dama doon fóot bi may fóot ne ci kaw bay weer yére yi daal di gis diw mi nga xam ne mooy yaay nabu mu daal jaar ci turam ne ko daal di gis diw di yoot ba dugg néegam maa ngi jàkkaarloog moom waxtu woowu waxtu woowu ñëpp a ngi dallu mu dugg néeg ki nga xam ne mooy Abdou anam bu doy waar dafa duggee dafa doon fëgg di gees ba xam kenn gisu ko. man bi ma taxawee ci couloir bi maa ngi yërndu maanaam taxaw mu jàkk mu jàkkaarloog man mi dama noo xool lan lay def Abdou ubbil ko mais bi muy génn dafa doon solaat yéreem Abdou ci boppam dafa doon takkaat tubayam rek yaay ji mbet ko yaa ma ne kañab xool yaay ji yaay ji ne ko ah yaa ma bett nga ma yaa wax ju ñaaw ju noo ko mën a waxee yaa ma kañ laa la xam ci fen ak évente ak sos noonu yaa ma daldi waat yaaya waat ci alxuraan waatal yaayam ni ko yaay xam naa ne mer nga de waaye maa ngi lay waatal ci sama bakkan waat ko ci waat yu gën a foor ne ko li ma la wax mu am yaay ji na xelam yedd ko mu xam ne nag yaa am du fen benn ñaar meer boobu nga xam ne mooy yaayu nabu moom awa day dof dof la xam na ne meer bi ku woyof sër la maanaam ku tàmm fo ak góor la ndax nag nabu moom di doomam ci njaalo la ko juree maanaam mooy nit ñi nga xam ne maam njaalo moo leen gënal sëy góor bu ñu gis xemmem ko rek suñu wétee bëgg nañu sëy ak moom nga xam ne loolu dafa mel ni vice la ci ñoom ca yàlla suñu borom xoola bi ni mu nekkee mag léegi nga xam ne léegi sët sax am na ko ndax yaama mi taawam am na doom muy papa mais xoolal woy woowu fi mère bi nar a bàyyi woy wu ñaaw woowu xoolal mère bi loolu muy dund ba yaama gis ko te yaama mënoon naa dund ba dee te du xamal mère bi dara su liggéey doy na sëkk ci sikk waaye boole ci nag nga nekk mag ba noppi woyof sër lépp tàmm moo ko waral rek rek waaye kuy tàmm na nga tàmm lu baax ca ndaw nga koy tàmmee ba nekk mag bëgg koo bàyyi doo ko mën a bàyyi mu jafe la lool looloo daloon meer bi noonu la awa xalaatee ne mère Adja Daba mosoon na ko wax ba muy waxtaan ak moom mere woon Nabou ak yaayam jamono yooyu dañoo nekkoon ci meer ñoom ñaar mu ne ko mère bii nga xam ne dafa woyof sër diw mi nga xam ne dafa woyof sër xale yi ndaw yi ci koñ bi sax day tëdd ak moom dawal ko charrette yeeg lu ne laay dégg ci moom boobu meer moo taxoon ñu wax loolu mu xalaat loolu nag xam ne li yaa ma wax mën na nekk dëgg waaye Abdou nag wax dëgg yàlla xanaa na ci rus nabu maire bi daal di jaaxle lool maire bi xalaat nag génn néeg bi wër dox lépp yaa maa ngi toog ci lal bi nag tiit ndax xam na ne wax na njombe noonu maire bi daal di ñëw moom maire awa ci jikkoom bu rafet ak éducation bu baax bi ne ci moom moom maire bi moom itam ndax nit ku nekk loo nekk nekk mag la nga tàmm rek muy ñëwaat ci yow awa rek léegi jeeg bu mag la daanaka maire la te awa moomu. mère bii doon njaaloo daanaka mat na ko yaay ndax moo yaayam ñoo doon ànd mais seetal loolu rek c'est vraiment grave noonu awa daal di wax yaama jël loxoom teg ko ci mbàggub ndeyjoor bu yaam ne ko sama doom li nga wax mën na nekk dëgg mën na it bañ a nekk dëgg nag mais bul def sa xel mukk ne mère bi dafa doon njaaloo xam nga lu tax amoo ci preuve léegi li ma lay wax mooy yenn waxtu yi ak yenn heure yi bu ko di liggéey del bàyyi noonu bàyyil ba ker sedd ba ñëpp génn ngay dooru génn ndax kër soo lu bari da nga koy gis te mën ngaa gis loo xam ne du la neex ndax maire bi fan yeew ñëw nga fi ñëw nga wax ma wax ma ne ma da doon suul liggéey ba loolu ñu arrangé woon ko ba mu jeex tey jii lii nga ñëw waxaat ma bu ëllëgee lan lan nga ma nar a waxaat léegi nag man xam naa naka laa koy gere benn conseil nag laa lay jox bul musa ŋaŋ sa gémmiñ ubbi wax lu mel nii wax ji même buy jug yow bu mu jugee ci yow ki nga xam ne mooy Abdou nag man sama rakk laa ko jàppee maanaam frère laa ko jàppee ndax xam naa ne man naa ko mag ndax donte taalaa ma mag mooy sama borom kër waaye taala magee na ko lu bari kon man sama rakk la te it borom kër laa ko jàppee dinaa waxtaan ak moom bu ko xoolee benn bët te bu ko jàppal dara comme da ngaa gis mu dugg ci néeg bi génn rek gisoo sa bët sa bët teguwul ci ñuy njaalo même charia sax loolu la wax fekk tegoo ci sa bët amoo lu la leer mën naa am sax dafa doon dugg di def liggéey wala dara lépp meer baa ngi wax rek ngir jëm a camoufler ndax jëf ju ñaaw jooju muy des ci xelu doom bi noonu la defalee yaama dalal xelam ba yaa ma tëdd continuer dina nelaw maire bi bi mu noppee ci loolu fan yooyu mu gis ki nga xam ne mooy Abdou waxtaan ak moom ne ko nag damaa bëgg ñu waxtaan man ak yow ndax sama doom yaama wax na ma benn jafe-jafe bu fi amoon ba fan yi ci ginnaaw wax na ma sax ne na yow gis nga ko ba seeni bët ñeent na dafa njortoon ne dara moo xew xam nga seytaane dafa bëri doole waaye dafa gis meer bi dugg sa néeg boo gisee may waxtaan ak yow nag bëgguma sa der di yàqu te ëllëg ci biir itam dangaa war a nekk kilifa amul njaboot te yow ak taal kot laa yemale meel bi nag sama yaay la sama yaay la du ma yàq deram ndax doomam day ne ci kër gi di sëy di fi sëy sama rak laa ko jàppee te sama xaritu yaay la woon bu doon sama sago nag yenn yi nga invité ko même bu fekkee am nga sax loo war a gisante ak moom nga xam ne yéen la concerné sax bu ma bu yow maanaam nga génn ngeen dajee fenn. waxta toog waxtaanee ko yéen ñaar mais bu mu doon ci kër gi ngeen tëju ci ay néeg kenn du xam ndax yaa ma xale la rek ni mu ko gisee keneen mën naa gis loolu waaye nag jàpp ci dara ndax waxtaan ak moom ba xelam dal na maire bi daal daal di wax wax ju rafet maanaam dara ci loo xam ne lu muy nëbb la amul maire bi dafa nekk nit ku deret nit ku set dara lu tilim ak lu taq lu ne ci moom moom mère Awa noonu la waxtaanee ak Abdou wax ju rafet conseil ku conseil yu am solo nag Abdou daal di am kersa lool nag ndeysaan Abdou nag li mu desee ci ak mbaax tuuti xam na ne mbaax gi ni ci moom tuuti rek nga xam ne nit moom lu mu bon bon am na tuuti ci mbaax mbaax gi xam na ne maire bii ku baax la maire bii ku set la as gor dëgg ngi nii nitu kese ngi nii nit ko amul wor bi mu xamee loolu ci maire bi la daal di rafet la wax ji noonu ndeysaan mu da am kersa lool nag ne ko incha allah dinaa ci gën a bàyyi xel te dinaa gën a góorgóorlu ci liggéey bi góorgóorlu ci yëpp noonu maire aw na ko bitig bi nag dama jël décision bàyyi la ko même temps waxtaan naa ci moom nee naa ko man lu ma soxla naa dem Abdou jox ma ko man ak ah, ki nga xam ne mooy nabu ñu ñaan ñoo yem ci kër gi lu ma soxla rek dinaa ñëw ci yow loo ñu war a jox nga jox ñu ko waaye bitig bi moom njaay mi yëpp sa loxo laa ko bàyyi ndax yow da war a am liggéey ki nga xam ne mooy taala sa mag la lu mu am ëllëg war nga ko am te mère Awa li muy wax lu dëggu ci moom ndeysaan cee yàlla suñu borom mooy yéeme dafay bind nit ñi ñu wuute lool nit ki day làkk comme ni ngay làkk kanam gi nga yor la yor ay bët yor ay nopp ngay dox muy dox ngay lekk muy lekk mais yéen ñaar comme càmmoñ ak ndeyjoor bokkuñu nit ñi wute nañ te loolu yëpp moo ngi dépendre ci coobare suñu borom waaye lu nekk nag am na sabab kon nañ sabab jukko yu rafet tàggat yar li nga xam ne mooy suñuy doom da gis benn pays boo xam ne sax pays boobu pour mu développer problème la waaw parce que la tax mu développer problème la nit ñi mën nañoo am xam-xam lool. président bu nekk nit ku baax ku nekk dinañ ko jël teg ko ca bopp réew ma ngir ngir mu jiite leen waaye xam nga luy doon seen problème ñi fa dëkkee lu ëpp ci ñoom ñoo yarawut maanaam ci kër yi la yàqu-yàqu yi tàmbalee dañuy seetaan seeni doom ci kër gi bàyyi leen ñuy dugg di génn kenn du yar sa doom fu leen neex dugg fu leen neex génn lu leen neex wax seeni waajur dem wuti xaalis wuti dépense bàyyi leen ci kër gi yar ba war duñ leen yar te xale mooy mooy ëllëgu réew xale ya nag bu ñu yarwul bu ñu teguwul ci yoon réew ma ngir mu baax ngir mu jag day jafe lool ce noonu nag la mbir yi demee woon maire bi nag am kersa lool ba tax na ñëwaatul ci kër ga parce que toog na lu mat weer loo xam ne nangu la ñëw ci kër gi su woowee nabu danaan ko am na lu ma la yónnee wala lu ma la jox jaar na bërëb sàngam demal nga jël ko wala dana la ko andil su ko nabu ne waa yaay lu tax fan yi nga gëj fi dafa naan ah man day nabu fan yi sama tànk bi day métti nangam nangam ne ko mbaa dem nga hôpital mu ne ko waaye dem naa hôpital nabu ba tey xamul ne yaayam day njaalo ak abdu ni ko noonu itam yaayu nabu itam xamul ne nabu day njaalo ak abdu abdu ne ci diggante bi nag moom xam na ne ku nekk xamul li ko moroomam li muy seq ak moroomam muy yaay ak doom muy luy ñaaw lu salte te muy lu bari nag ci jamono biñ toll nii ci yàlla noonu nag la mbir yi demee woon bi nga xamee ni doxee nañ noonu jamono yooyu yaama moo ngi doon waxtaan ak papaam di préparer li nga xam ne mooy rakkam jooju am mbefem mu war a dem lycée nga xam ne ñoo ngi ko commencé lijjantil ay papier am ay kayitam ngir mu war a dem àggali jàngam France jamono yooyu itam ki nga xam ne moom mooy mère moo ko doon defal ay ñaan da defal ay sarax lenn ci ay kilifaam itam mu di leen tàgg ñoom ñëpp yëg nañ ne ki nga xam ne mooy doomam bi gu taawam bu bi di moor moo ngi koy lijjanti ngir mu war a dem bitim réew ci papaam damay jàng foofu nabu nag amatul woon jàmm amatul woon salaam di dox ay jéego ngir loolu di dox ay jéego fu ne mu dem fa sëriñ bu ne mu dem fa dem na ba jël benn njiitlaayu ki nga xam ne mooy moor loo xam ne yaama daf ko fóotoon fóot ay yéreem weer ko moom ak ans ndax ans moom ci daara ji ci koñ bi lay jàngee di jàng na ñibbisi waaye moom na bu fexe na ba jël dara ci am njiitlaayam ci ki nga xam ne mooy moor dem yóbbu ko ci sëriñ mook yaayam ngir ñu liggéey ki nga xam ne mooy abdu mooy mooy mooy euh, moor boog di taawu awa bu góor bi waaye bi ñu defee seen liggéey ba noppi sëriñ bi da na xaarloo ne leen incha li ngeen bëgg di ngeen ko am jamono yooyu itam ki nga xam ne mooy maire bi ci xelam mu tilim mu salte moom mi nga xam ne mooy yaayu nabu dafa wax nabu ne ko yow itam defal pexe ba sa doom bi dem comme tollu na ci war a dem dal jàng maanaam ren ji la war a tàmbali dugg école pour di jàng léegi nag moom sa doom bi fexeel ba mu teel a dem ci baayam xale boo xam ne maanaam xale su ndaw la soo xam ne xale bu góor la bu am ñeenti at jàpp juróomi at nga xam ne door a dal jàng kese ci lay toll ci ci ci primaire yi case de tout petit yi lañ koy lañ koy dugal pour mu jàng nga xam ne xale su ndaw la noonu la doon defee ay pexe di waxtaan ak taala na bu teg pression taala noonu muy dem ci sëriñ ak lu ne mu dugg ci ngir taala lijjanti doomam ji mu tukki comme xale bi am na kayit moom pour mu ñëw France lu yomb lay doon ndax fa la juddoo noonu nag lañ doon doxee mbir yi waaye li gën a salte te gën a ñaaw ci mbir mi mooy bi biñ koy dox dañ ko doon nëbb ki nga xam ne mooy awa ak yaama ñoom yëguñ ci woon daara jamono yooyu ñoom ñoo ngi doon xaar ñu jëndal ki nga xam ne lijjantil ki nga xam ne moom mooy moor passeport ngir mu dem bitim réew dem France noonu lañ leen doxalee mbir yi biñ ci tegee ab diir Abdou itam ñëw dugg ci kombaa bi maanaam di jàppale maire bi ak Nabou moom itam bokk ci seen gang loo xam ne kenn yëgul ñoom ñett ñëpp ñu teg pression taala taala itam ndeysaan doon bañ këram tas doon bañ lu ñaaw donte ne moom taala sax du nit ku baax workat la. moo gën a bon ñëpp moo gën a doy waar ñëpp waaye teewul doon na xaw a suuraale comme dafa njaboote ay njabootam du bëgg njaboot gi tas te it ruus na yaama te bàyyi na xel yaama waaye bi mu sonnee ci pression bi ci la daal di jàppee bis ngir ñu war a yëbb xale bi nga xam ne ci ñeenti ak jàpp juróomi ak ci lay toll ci jamono boobu ci lay toll ngir war a dem fa nga xam ne mooy bitim réew jàng jamono boobu xamee ni kii am na befem lu yàgg moom bi mu amee befem ak léegi moom it léegi mu mat ñaar jàpp ñetti at yoo xam ne jàngul maanaam bi mu amee befem dafa arrêté woon inscription yi maanaam demul def inscription ci année boobu ba ci ñaareelu année ba ba dugg ñetteelu année bi ngir ñu doon ko lijjantil papier yi rek mu war a dem tukki nga xam ne yaakaaram yëpp ci la ko def ngir su àggee mën a àggale njàng ma jamono yu tombeek xale bi nga xam ne mooy papa mu ndaw bi moom xaw a dëgër moom papa mu ndaw bi nag moom lañ mujj lijjantil benn bis daal la na bu ñëw waxtaan ak Awa ne ko ah taal de moom moo woon ne ma dafa bëgg papaa ñëw ngir tàmbali njàngam comme moom ay papiyam noppi na Awa ne ko ah Awa ah, lu rafet la moom macha allah noonu mu ne ko ah ma papa ma tàggatoo ak moom kañ lay dem suba mu ko waaye fii jàmp na di taala du ko waajal sax une semaine wala na Nabou ne ah daal di lay lay ba génn ci noonu la ko ñëpp yëgee coow li nag daal dina kur ca koñ ba. ak koñ ba ñu njëkkoon a dëkk ba ñu yëgee ne ki nga xam ne moom mooy papa mu ndaw yi ñoo ngi ko yóbbu France mu dem jàngi te xale bi nga xam ne moom am njàngam ak xelam mu neex ak jàmbaare gi mu jàmbaare ñëpp yëg nañ ko muy moor di taawu awa nga xam ne ñëpp naan papa ji da koo seetaan waaye su ko taxawu woon dem na su ko jàppale woon mu dem waaw li tax mooy xale bi ñu toog na presque ñaari at yu ak lu tegal mënul fexe ba am visa pour dem France te papa jaa France am fa am fa am fa doole loolu nag maanaam am fa liggéey bu baax am fa itam ay këyitam kon pour doomam bi taawam bu góor bi dem war a yomb la ñenn ñi naan waaw paa bi kat moom benn doomam kese moo juddoo France mais ngi ci des juddoo wuñ fa ki fa juddoo képp moo fa mën a dem nga xam ne lay boobu la ñu jël ba noonu la ñu ki nga xam ne mooy papa mu ndaw jamono yooyu nag nabu moo ngi kontaan bi sedd ndeysaan papa ndaw dem na yaama nag loolu naqari woon na ko ndax da tax mu naqari ko mooy yaama moom lu yaay ji baax ba yaay ji mbaaxam gi dafa ëpp waaye yaama mu baax na comme yaayam mi dafa am fulla nag ndax li am gënalu ko bu doon sagoom magam maanaam rakkam bi ñu topp ci moom nga xam ne moo war a tukki moom la ñuy yëbbu ndax dafa bëgg lépp ñu teg ko ci yoon ba tax na sax doon na woo papam téléphone di ko wax ne ko waa papa yow lii nga def nii noo ko mënee yow tamit lan moo tax nga kii te te te kii yëpp boo ko papa ji daal di mer na ko yow yaa am xale bu ndaw yaay liggéeyantu loolu ah yow noonu lañ la yaree yow léegi li ngay liggéeyantu dafa bari de nangam nangam commencé di ko harcelé yaa ma nag daal di mer noonu yaa ma daal di jàpp njàmburam waxul dara noonu bi nga xam ne taala woo na awa wax ko ko awa ñëw dal ci kaw yaa ma ne ko yaa ma lu tax ngay wax sa papa naan ko nangam yow papa sa rakk la ñëpp ñoo yem ci yow yaa ma ne ko man yaay waxeewu moom foofu li ma doon wax lenn képp la mooy sama maanaam moor mi nañ ko lijjanti ba mu dem ba pare ñu doo lijjanti papa papa fi dafa doon tàmbali am njàngam fii yaa ji ko xam nga ne papa fa la juddoo am na kayit loolu occasion boobu lay bañ mu rëcc ko yëpp benn la yaay dina commencé di wax ak moom naan ko bu dugg ci jaxasi kër gi nangam yaa ma léegi changé nga commencé di ko harcelé te yaa ma li muy wax lépp dëgg la yaa ma nag ci la obligé décider nag bañ a nag nekk nekk nagu saraxu kër gi am ful la nag ne léegi li may def mooy problème kër gi dama ci maandu su ma gisee daal lu ma a jàppale sama yaay ak samay rakk ak waa kër gi ma jàppale leen ko waaye mbiru kër gi moom dama ci màndu ndax lu ñëw man dëgg laay wax te dañ koy xëppaat sama kaw yaa ma décidé nag màndu ci jamono yooyu ki nga xam ne moom mooy moor mooy gën a màgg di am la ko naqari loolu jàngiwul te bu génnee ci ay moroomam ndeysaan day gis ne dañ ko koy ñaawale maanaam ñu loon école ñu bëri yëgoon ne dafa war a dem France ngir jàng ji fa ñu bëri yëg nañ ne ba léegi demagul te rakkam bi ci kër gi di nekkoon am caatum baayam ci jamono boobu mooy ki nga xam ne mooy doomu baayam di papa dem na France loolu nag xawoon naa naqari ki nga xam ne mooy moor ci li ko nit ñi di ñaawalee bu ñëwee wax ko yaay ji yaay ji naan ko ah loolu dara mu ñal rek incha allah di am kayit di dem Moussa nag di dund métit yooyu ak naqar yooyu jamono yooyu itam ans moom ma ngay góorlu ca année boobu rek la mokkal alxuraan mokkal googu ans mokkal alxuraan tari ko dañu koy tari ba muy tari dafa fekkoon daara ji mu doon jàngee nekkoon daara joo xam ne sëriñ bu mag moo fa nekkoon organisé woon benn conférence tari boo xam ne juróomi xale ñoo mokkal ay kilifa ak i boroomi xam-xam ak nitu nguur ñu ci bari daje woon nañu fa conférence boobu ki nga xam ne mooy awa sagal nañ ko fa saggu na fa lool ndax doomam ji mokkal tari alxuraan te loolu nekk na loo xam ne lu jafe la ndax xale yu bari yoo xam ne moor moo leen fa jiitu woon ans moo leen fa jiitu woon mokkaluñu te moom as mokkal na taxoon na jour boobu daanaka moom lañ takkal médaille d'honneur boobu maanaam ci gaaw mokkal gi ak njàng mu rafet mu set mi ba loolu suuloon na naqar ak gàcce gi nga xam ne doon na yoot ki nga xam ne mooy awa ci doomam boobu nga xam ne moo doon dem France te demul loolu taxoon na itam nit ñi daal di rafet njort ci moom loolu nag ne ci yàlla de moom mu ngi nii dafa aay ci fotu mbuur soowee rek mbuur daal di taw ci kawam noonu la ñëpp daal di ne kon nag ki nga xam ne mooy mère Awa ku baax la ku liggéey la ku sonn la kon daal ay pexe lañ def rek ba doomu eh, Nabou dem eh, doomam des fi waaye yàlla dina àtte nga xam ne ñu bëri noonu lañ jëlee woon problème boobu ñi ci seen yoon nekkul sax te bëgguñu insister sax daf leen naqari woon waaye teewul ñu doon dund rek yaama moom nekk iniversité di jàng di góorgóorlu di dem di ñëw. jamono yooyu moom Moussa ñoo ngi déggante di waxtaan Moussa jamono yooyu itam am na liggéey moo ngi liggéey ñu doon dund dund ko tey amuñ woon benn jafe-jafe waaye benn bis ki nga xam ne mooy moor dafa génnoon waxtu njolloor demoon sport maanaam entraîné ji waaye bi mu wàññeeku daal la mel ni ngelaw daf ko solu ngelaw loo xam ne kenn xamut lan la waaye bu ñëwee ba agsi ci kër gi tàngoor woowu jàpp ko mu daal di fudd commencé nag daanu ci buntu kër gi di kadd kadd yi gémmiñ gi fuur ña ko fa romboon ca bedd ba ba ñu ko séenee dañoo daw rek yuuxu noonu lañ ko fabee dugal ko ci kër gi moor nag di kadd kadd yi mel ni kuy bëgg a faatu moor mi nga xam ne mooroon waroon dem France ak li njàngam moom mooy taawu awa bu góor yaama ak awa ak ñëpp génn yuuxu yi mel ni tulleeg male ñu ne moor moor ma ngay dee lu xew moor di kadd kadd yi nag noonu lañu gaawantu rek Abdou dawlem lijjanti ji oto maanaam comme moom mooy góor ci kër gi dem lijjanti taxi ngir ñu yóbbu ko hôpital xool lan moo ko dal mu nekkoon nag lu doy waar lool. fii la ñu épisode bi ñu jox leen di daje épisode bi ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf. Abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam.